Il est 21h. <coughs> mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi écouté gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci suñu diwaan juróom-ñeenti waxtu ca Medina Cheikh ca Ndar bi sibi la ci xibaar ñoo lànk organisation yi lëngoo ak nag société civile bi ñu ngay sàkku Boubacar Seye ñu daal di koy libéré ni mu gën a rek gaawe yooyu les organisation di sàkku rek ñu daal di leeral lépp loo xam ne xeetu koppar la ñu dugal ko euh, ci mbirum rek xeex wàllu tukki bi dem bitim réew wàllu immigration bi dinañ ci daal di dikk ci ndaje bañ ca amal tey ji ñoo lànk CUSEMS authentique coalition jot na UFC république des valeurs ba ci Africa Jom Center ñoo ci daal di amal ab ndaje tey ji ci ngoon eh, dinañ ci daal di nag jukki ci ndorteelu xibaar yi lay doon eh, ñaareelu vague Covid 19 bi nag tax na ba mayee deret daal nekk loo xam ne eh, manqué na ca centre bañ koy daal di nag defee lu war a toll ci fukki fan a ngi nii daanaka defuñu dajale li nga xam ne mel nag euh, ñi ci woote rek askan wi ñu daal di rek euh, maye deret bu ko defee sooy ay bakkan docteur Youssou Guèye mi responsable CNTS daal di na ci rek euh, yëkkati ay kàddu jeexital yi aju ba tey ci wàllu mbas mi commercant ya fare ca Kër Massar ñoom nag arrêté bi nga xam ne nag dafay tëj marché yi bu ngoonee 18 bu jotee mbir mi ni mel daal nangu nanguwuñu ko benn yoon ndax ci dolli ñeen ñu ñàkk yemale daf ci am ndax am na yenn ci commerçant yi nga xam ne nag waxtu woowu bu jotee dañ leen di bàyyi dinañ ci daal di ànd ak ak Birama Ndiaye dinañu desandi itam ci li aju ci wàllu nag carte égalité chance yu bees yi te ñu koy rek euh, jébbal ñi nga xam ne nag euh, ñooy yore woy rek euh, laago ci wàllu nag bët dina leen tubbee way silmaxa yi ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ci yu bees ñu daal di koy nag amal foofa ca Kaolack xew-xew bañ leen ko doon rek jébbal daal nañ koy rek amal ci teewaayu Adja Awa Thiaw nañ ci daal di jukki ci kanam tuuti fàttali leen ponk wax sa xalaat bokk na ci sax wàllu contradictoire li ci wàllu wàññi luyaas bi ak jeexital ba mu am boobu ak léegi bi ci des mooy wàllu mbas moome ak mbirum Boubacar Seye waral sax ñoo lànk ak organisation yi daal di daje tey jii ci ngoon Alioune ba euh, Alassane Wade moo ne ci sottandikukaay bi faram-fànce gi lay doon. Adama Ndior. Eh, ci kàddu gi ñu doore ko ak ndaje kuréel googu di ñoo lank lëkkaloo ak ay organisation yu société civile la ñuy sàkk lenn la mooy kii di Boubacar Seye njiital Horizon Sans frontière ñu daal di koy nag bàyyi nu mu gën a gaawee yooyu la nag organisation di sàkku ñu daal di leeral lépp loo xam ne xeetu xaalis la ñu dugaloon ko ci nañuy yore rek wàllu tukki dem bitim réew bi ñu ngay sàkku itam ñu ngay gis ne itam wala ñaawlu li nga xam ne nag mooy eh, fas faat kii di euh, Boubacar Seye ci wàllu nag euh, doxalin organisation boobu mu daal di nag euh, jiite ba tax ñu jàpp ne dinañ tàmbali seen i nag plan d'action ci wàllu woowule bu fekkee autorité yi réagir ñi bu ci des nag kuréel yi ñoo ca daal di lënk lëkkaloo ñoo lànk CUSEMS authentique coalition jot na UFC république des valeurs ak Africa Jom Center ndaje nañu ak taskatu xibaar yi tey ji ci ngoor ci teewaayu ay satu gay ba lëkkaloo ngir ñu teggi yoxoo kii di Boubacar Seye moo demander sa libération immédiate nañu ko bàyyi ci ni ñu nu mu gën a gaawee jàpp na ko ci jàpp jàpp bu dul yoon lépp lu dal Boubacar Seye responsabilité Macky Sall la responsabilité état état bu Sénégal la. ñi nag ci li ñu wax nee nañu li ñuy mettitlu mooy mbuugal bi ñu bëgg a mbuugal kii. di président Horizon Sans Frontières Mourtala Seck mooy co-coordonnateur ñolonk ñuy wax nag waa Union européenne yi nga xamante ni ñooy ndeyu mbill gi waa Union européenne yi nga xamante ni ñoom ñoo joxe xaalis bi ñoom ñoo waral coow lii dañ ne seen kàddu ñoom na ci jib ndax kat bu ci jibul ñoom complice lañ ci lii xew ndax Boubacar Seye deful lu dul wax li nga xamante ni première ministre bu France wax na ko te muy ay preuve yu tangible yu palpable yoo xamante ni am na ko wax ko donte bu dee laaj nañ ko ko gis ko dañ ko bëgg intimider wala ñu nangu kayit yooyu ci moom parce que niñ ko jàppee lu ñu ji wax ñu gëm. Boubacar Seye nag ñu daal di ko placer sous mandat de dépôt ba tax nag organisme yi daal di rek jug taxaw temb ne rek jamono ji li jara def mooy justice daal di andi ay leeral eh, ci dossier boobee. donc ñun dañuy demander justice ne nañ ko àtte te itam li wax su fekkee dëgg la mais c'est très mais su dul dëgg na ko nguur gi demander mu jeex. bu ñu sukkandikoo sax ci porte-parole kii di Horizon Sans Frontières Boubacar Seye jamono ji yaramam dafa jagadi nekkinam foofee ci biir kaso bi daal di doy waar Souleymane Alioune Diallo mooy porte-parole Boubacar Seye. xam nga ni Boubacar Seye wérgu yaramam neexul. Euh, mu ne ma waxal ko Macky Sall que moom du noonu du ennemi wu état Sénégal moom du politicien encagoulé